Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen de presse. jàngeen jëf gannaaw législative yi ñu amal di béer ak la ca tukkee yéenekaay yu bëri xëy tey di wax ci ëllëgal Ousmane Sonko réew mi quotidien fësal ci taxawaay bi nga xamante ne Alioune am na ko moom jiital Africa Jom Center mel ni kuy sàkku Ousmane Sonko ngir mu dem jiite assemblée nationale Alioune Tine mi féete su société civile li mu gis mooy loole dina tax ñu mooy tandi bu baax a baax li ñenn ñi di jot muy xëccoo diggante Jomaay ak Sonko yokk ci ni ku nekk ci ñoom dina jiite ab pouvoir bi nga xamante ne dina wuute ak moromam mu mel ni xalaat bile moom la Maurice Soudieck Dione am xalaatu Alioune Tine tamit fës ci xët bu njëkk Vox Populi li mu gis mooy Ousmane Sonko ci boppam dafa war a dem jiite parlement bi loole dina tax mu gën a mën a liggéeyal Sénégal waaye tamit gën a bokk ci li mu duppee équilibre des pouvoirs ndaxam Sonko dina dem ci assemblée nationale muy laaj bi nga xamante ne l'exclusif samp na ko yéene ci fësal jàngat bi nga xamante ne Maurice Jack John am na ko professeur en science politique bi gis ni Sonko dem ca assemblée nationale dina tax ba ñu moytandi lépp li nga xamante ne coow la ñu njort ni mën naa juddu ëllëg ci digganteem ak Bassirou Diomaye Faye l'observateur di dikk ci tànneef boobe nga xamante ne njiital Pastef ci boppam war na ko mën a def yéenekaay bi gis ni pexe dégg moo ci mën a génnee kii di Ousmane Sonko ndax diggante postu premier ministre nga xamante ne am na lool solo ndax chantier yu mag ci wàllu politique publique bu Sénégal ak njiital assemblée nationale bi nga xamante ne war naa mën a tax mu gën a saxal li nga xamante ne moom mooy ay conviction politikom ci terrain bi waaye tamit pouvoir yi nga xamante ne dina ko am ngir mu mën a jëmmal li nga xamante ne moom mooy influence am ci réew mi lii l'observateur wax tax na kon ba yenee yéenekaay gis ni diggante primature ak assemblée nationale tànneef bi war naa métti lool ci ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko jamono ji ñuy xaar fan la Sonko di mujj réew mi quotidien di ma ngay woy di wàññi ay député wam gannaaw tendance yu métti nga xamante ne dibéer gi nemmeeku nañ ko le témoin moom li mu gis mooy jamono ji tembe Pastef mën na am lu toll ci téeméer ak fanweer ak benn député takk wallu njort nañu ni mën nañoo am fukk ak juróom benn jàmm ak njëriñ juróom-ñaar sàmm sa kàddu ñetti député cundung loolee nag commission national de recensement des vote war na ko dëggal ndax ñoom war nañoo tàmbale seen liggéey liggéey kon la def ba gis ni ci ñeent fukk ak benn liste yi nga xamante ne ñoom ñoo bokkoon ci yi fukk ak benn képp ñoom ñoo war a feeñ ca ne moom mooy assemblée nationale gannaaw législative yi gannaaw législative yi les échos gis ni ndam lu amul benn laam-laame la pastef am ndax fépp la raatale waaye yéenekaay bi ma ngay leeral ni Matam Goudiri podoor Gossas ak Afrique centrale ñooy diwaan yi nga xamante ne dañoo résister ci ndamal fa moom pastef li quotidien dañu xamal ni lu toll ci ñeent fukki département kon la daal di jël ci élection législative yi gannaaw jàngat ba fësal ñi nga xamante ne ñoom la jàpp ni ñoom ñoo mucc ci mbàccum gerte pastef bi bokk na ci Farba Ngom Daouda Dia Moussa Bokar Mori Diaw ak amadu Dawo jàlloo ñoom ñëpp ca Fuuta daal wane nañu seen bopp ci kanamu transhumant yi ci diwaan yu nekk ci centre bi nag Adama Diallo moo fa gën a fës sax kii di Macky Sall ndax moom am na ndam ci diwaanub Gossas yéenekaay bi dañu xamal ni ca sud-est tamit Goudiri ma nga jàpp ba léegi ci kii di Macky Sall moom Macky Sall ci Walf Quotidien mel ni ku war a amee jafe ci li nga xamante ne moom mooy statut bi bees bu mu am ndax yéene kaay bi mu ngi ñuy xamal ni gannaaw élection législative yi mën nañoo jàpp ni njiital APR léegi moom mooy chef de l'opposition waaye chef de l'opposition ak taxawaay bi muy sàkku muy nekk ci réew mi di doxal am li nga xamante ne mën nañ koo dénk ni ngëneel loole ndaxam njiitu réew ma woon mën na cee bénéficier ndax li mu daw làkku ca biti réew war naa nekk lu jafe gannaaw élection yu amul benn jafe ba résultat yu ca tukkee daanaka kenn indiw ci laam-laame bëri ba ca njëkk yéenekaay bi gis ni Sonko daal dogali na gaañi ba dëggal li nga xamante ne moom la sumboon ci présidentielle bi famille libérale bi moom nga xamante ne dañoo woote woon ab dajaloo boo moytul nag ci xaajaloo lay jëmaat jamono ji nag xëccoo gi tàmbali na ci plus fort reste waaye ci yéenekaay bi ma Madiambal Diagne ma ngay xam ne ni ñoom daal ñu ngay waajal seen bopp ngir yeneeni élection yi ñu dëgmal laata ñu yegg ca yooyu l'évidence di ñu xamal ni Ousmane Sonko moom wane na ci yile bu Sénégal am leneen lu ciy feeñ Sud Quotidien mu mel ni loolee la jàngat ndax nee na recomposition moom ci géew politique ci Sénégal loolu alakuli ali faaw mu am li ko waral yéene kaay groupe Sud Communication bi dafa jàpp ni lu leader opposition yi nga xamante ne dañ leen a làbbali ñoom ñëpp ku ci nekk léegi xam nga sa place faaw ñu am yeneen gis-gis wala sax yeneen xar kanam mën a feeñaat li feeñ gannaaw législative yi la tribune nee na mooy ndam li nga xamante ne kenn du ko laam-laamee ba tax yéene bi jàpp ne li des léegi mooy Diomaye ñu daal di farlu ci liggéey bi def nag ba li mën a tax askan wi leen woolu daal di am mbégte gaynde yu Sénégal war a bëggal seenu askan tey ji ci jongante bi ñu war a sekk ak waa Burundi Rewmi Sport di ñu xamal ni boobule jongante daal ak lim ci mënti doon Sénégal leer na ko ni mooy mujj ci place bu njëkk groupe bi record ne ko yamul rek ci place bu njëkk faaw ñu fexe ba public bi nga xamante ne dafa mel ni dalee na dumóoyu woon ñu daal di dellu nekk ci seen ginnaaw li war a am solo ci jongante bi les gis ni moo di ni li mu bëgg